mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di jëkk ci nuyoo boobu sëriñ Muntaxa Mbàkke mu sëriñ ba siru sëriñ Touba di ko màggal di ko siyaare tey ñaan mu yàgg fi te maa ngi nuyu sëriñ Cheikh sunu sang ba sëriñ Cheikh mu sëriñ sang di ñaan moom mu yàgg fi te di nuyu bokki jullit yëpp bokki cantaakoon yëpp ak bokki taalibe yi di leen sant bu baax te di leen siyaare ci weeru safar yi nga xam ni day weer wu am solo di weer wu màgg ci ñun murit di leen ci jaajëfal eh, di yëkkati kàddu di am ak cant gu rëy di yëgal waa senegal di yëgal bokki jullit yépp ni jot nañu ndigal ci sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Saaliw jumaa jooji nga xam ni di jumaay jànnatul maxwa te ci njalbeen sëriñ Saaliw Mbacke sunu sang ba yàlla na ko sunu borom fayal eh, joxoon ci ndigal sëriñ Cheikh Béthio ngir mu defaral ko ko ci fàttali keroog ba muy jox ba mu koy jox ndigal googu mi ngi naan ko bëgg naa nga defal ma fi jumaa joo xam ni bu ko bu dàqul ci jumaa yi bu ko ci jumaa dàq eh, taxoon ndeysaan sunu sang ba Serigne Béthio eh, jële woon ko xol eh, tabax jumaa ji wër àddina ngir yére yi gën ci yére yi ñu man koo dëppale ak jumaa jooju jumaa jooju nag laata muy génn àddina jébbaloon na Serigne Cheikh Mbacke caabi yi ba ko ko joxee boobaak léegi eh, sëriñ Cheikh ci mbaaxam gannaaw bam ci amee ndigalu Serigne Mountakha bëgg ñu ubbi jumaa ji mu woolu ma jox ma ci ab cër ñu ciy sant lool ndax ba ko ko sëñ Béthio jébbalee rek lañ ci noppi woon ñun waaye tawféex ji gën a rëy mooy daf nu caa boolewaat joxaat ñu ci ndigal ngir nu ànd ak moom ubbi jumaa jooju loolu nag muy cant gu rëy rëy ci ñun cantaako moo da waraloon ma ma ma ma ma sàkku bànneex boobu di di ndamul lislaam di ndamul murit yépp ma bëggoon koo bokk ak ñëpp moo waral sama woote bi ñu ngi ci beral ak cant gu wér nag sëriñ Cheikh mi nga xam ni ñun ci moom lañu ñu jokk mooy sunu sëriñ mooy sunu sëriñ Saali maa ngi ko ci sant cant gu am fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ngir boolewaat boobu bii mu ñu boolewaat ci liggéey boobu bii liggéeyub sëriñ tubaab bii noonu nii mu ñu ci narganewaat te mënuñu woon a am lu ëpp lool maa ngi ñaan mu yàgg fi te te te te di ko xamal ni nun day soxlawunoo soxlawunu dara lu dul topp ci moom di jëfe ay ndigalam tey bàyyi ay tere loolu daal laa ne woon ci gàttal dinaa ko wax bokki taalibe yi di ci woo nag cantaakoon yëpp ak fu cantaakoon mën a ne bëgg naa bis bii nga xam ni day ubbi jumaa ji ñu fekke ko sëriñ bi nag diglewu ci sax ak ay xumbeel waaye nag digle nañ ci ñu jàng fay xasaay jàng fay jàng fa alxuraanu karim maa ngi woo suñu bokki taalibe yi cantaakoon yi nga xam ni ay jàngkati xasida lañ fu ci waay mën a ne bu bis baa na nga fa teew asalaamualeykum wa rahmatullah bis bi nag ma le cinq bii la muy ajuma ji ñu jëm eh, ci sama njalbeenu wax waroon naa koo leeral eh, ñu ngi koy ubbi ajuma le cinq ñaar fukki fan ak juróom ci weeru septembre muy ajuma bii ñu jub jërëjëf jërëjëfati sëriñ Saliou jërëjëfaat serigne saliw serigne Mountakha mbake xalif general kullu murit yalna fi yag lol te gëna wër serigne Cheikh Ahmadou mbake mom serigne saliw yalna fi yag lol te wër ak njabot serigne saliw gep di siaré serigne saliw ndigal diko ñaanal mu yag fi euh, xeyna wax ji daamante ñak ngir day ndigal waye japp naa ne li matoon wax lepp serigne bi mat nako wax nako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 li nak day ndamul l'islam ñi ngi ci wo mbokki julit yëpp mbokki talibé yëpp mbokki murit yëpp fu fi war nga ñew téwé ci li di ak juma ji nga xamni mom la sëñ Béthio tabaxal sëriñ Saliou ñi ngi koy def nak aljuma le 25 septembre 2020 di ci bo nekk ci weer wo xamni day weeru safar nga xamni double ngañay lañu am ñun suñu safar daal dinay tambali ci sasi